fii ñu toll nii def nañ appel du ñun rek ñoo def appel démb liir naa seen communiqué ñu naan non man justice bi ñoom am na du justice su euh, profitar la ñu ngi continuer di yàq mais ci communiqué amul kenn ku ko ci ñemee wax jàpp naa ni gor ca wax ja bu fekkee ni que d'accord uñu nañ def ñun ni def nañ def appel ñoom bu fekkee ni que jàpp nañ ni que dese nañ ay preuve yu mën a wane ni que man am na lu ma taqal wala Ousmane Sonko lam doon seet am na sax début feuille bu mu ci gis nañ def appel ñu ñëw appel waaw maître moom dafa bëgg lu leer waaw donc euh, maître li muy wax moom ñaari appel yaa ngi nii deuxième mi moom faaw ñu football. te du am prolongation lu ci am lu tax buñ teel a yóbbu. créer équipe pleine. non non ñoom kay gis nañ ko parce que. c'est parce que le parquet a fait appel. oui oui c'est procédural c'est mécanique. ils ont je leur ai donné la possibilité. que vous répondiez à aux questions pour qu'ils puissent comprendre les procédures de droit ñii dañ ciy sonn parce que xam nañ ni que waa jiñ ko seqal. day fekk trois mu dëpp ko ni la yokk ci benn zéro ni la neuf la parce que lépp lu mu la wax suba ba ngoon jot dara du ci dëkk dara du ci dëkk donc def nañ appel li ma ciy ñaan nag mooy taxawaay yi dafa war a ute yéen ñi ñu bokkal coalition yéen ñi ñu bokkal parti yéen ñi gëm li président de la république def tey amatul sikk sàkk ni ko waa ji ñemeetu la dem ci sénégalais yi tey amatul sikk sàkk ni que li mu jiiñoon ñi nekk ci ñun ñëpp dara du ci dëgg yoru ci firndey dara